bismillah xalabtu kulli li kay mu baaxa tawfiixi ikraami xultu baax baaxa salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne safoo seen chaîne bi di Saint-Louis TV bëgg lañu am saa su nekk nag ndax gis ngeen comme ni ñu koy waxee rek lépp lu xew lu nekk rek Saint-Louis TV di daal di ñëw daay di defar plateau bi nga xam ne plateau bu am solo la rawatina nag euh, ñi dem ci safar mu ne safar nag xel yi jëm ci Ila Touba ba tax nañu amal palaato bu yàññi bi nar a waxtaanee ki nga xam moo di ku tedd ki mm-hmm. lépp nag ñu jagleel ko ñi nga xam ne ñooy yi ba tax na tey ñu am mbégte dala fi Cheikh Fallou Ndiapandal mi nga xamni mo moo nar a bégloo ci ku tedd ki waye tamit duñ ci wet benn yoon ndax ñu ci Cheikh Baba Ngom Naar Fall bu ko defee moom tamit dina ñëwaat gën nu bégal ci ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan waaye balaa ñu def dara rek dañuy daal di bàyyi Cheikh Baba Ngom Naar Fall mu daal di nuyoo euh, Baye Fall li nga xamni mom lay nuyoog ñoom sëñ Cheikh. wa assalamu alaykum sëriñ Cheikh ñi ngi lay ziar bax dina di bax bax di kontaan bax ci dalal bi ñu dalal ci waccay magal gi di di siya Cheikh Fallou jàppandal mi nga xamni mom moom lañ ko bokal jeugen jeuf jeuf jërëjëf Cheikh fallu yow mo def mel plateau sa plateau la te min nga seen TV. ok aoudu billahi min acheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli qalabtu kulli li karimin wa baxa tabixa ikramin لك خطاب الشاكر المؤرخة أي عم الزيني شكرك المؤرخة جرجفة سرين تبا جرام شيخ إبراهيم وفال بركة برم بدر وعليكم السلام ورحمة الله سن شيخ نيون لأي سيار دينا جو سواج وايد سيار مولم أوديتر أوديتر سو سيلو تي في دي سيار تسونا سانك بتاعت بيونو بوكال بلاتو بي مي سانك سيخ تلان نبوك فالو دي سونا دوم كوسيلا نعم بيكتر لولو ديكو دفن موم باي ديكو دفن دوك

Ya malikal mulki ya man jalla an hawadin Ilham jami al-wara Ya hadian radang Ya man maalikal mulki yaa bur yàlla yaa jalla jalaalo sëñ bamba nee na irham jami alwara yaa hadiyan radaw rabbi bi ma yasral alaa na xar borom ñaareem bi jaay am lillahi xat la jaaw xamdi li rabbil karim min la sharika lahu sëñ Bamba nee na nuuran zaatiyan malaaw محمد صلوات الله في أبد عليه في خدمة كل بكلام أدعو إلا الذي أمد مواهبه سيما مننا لجملة الخلق ما يختار من براهم عن إله الذي عمن مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براه ناجيته جل أغوى من وكرمني تكريم هاد وكل لمن لخد برياه رحمن القرآن عب لجميع الخلق رحمة من يوني سار من قرآن قرآن قرآن المصطفى الكل ما سدتين وترقمي خلق يا من جد بدا سجبا من يا مالك الملك يا من جلاك ودل سيما ما غينيان ارغم جميع الورى يا هاديا رداو بوري علي بوري بوري ارغم جميع الورى يا هاديا رداو ما غوت ما خد نخا وخلب من دررين bijaayi abdali ma lillahi xad laja barke sëñ ah sëñ Cheikh dégg noonu de sëñ Fall Cheikh Fallou Cheikh Fall xam nga ma dama laa namoon nag def je pense que tey moom jotaay bi du ma la du ma la dagg fenn dama lay bàyyi rek ngay wéyal nu mu la neexee Cheikh di fële ni mu ko neexee ah ñoom ñoom sama sama ñoom sama ñoom papa ma gaaw def lu la neex. waaw <laughs> waaw mais na def lu la neex bi. <laughs> ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Tafa ki ñoom yi gaa ak ñoom Maja ñoom El def lu la neex ñu tamit ak ñoom Nobis boo ko defee waxtaan bi da koy tàmbalee ci dèjà fi nu fi nu nekk ci Covid bi dafa dem ba dafa am ci ñenn ñoo xam ni seen gëm-gëm wàññeeku na. Mhm. ndax la xew pour bañ a dem Touba. Mhm. te émission bi bëggoon ñu jëm ko waxtaanee ci kéem taanu sëñ tubaa ak li sëñ Touba daj ba a gi am. ok. loolu rek laa bëgg daal di wéeru na ji la fi daan aoudu billahi sami alalim min asheytan rajim laaj nga laaj bu am solo balaa may jëm ci li jëm ci màggal gi covid 19 bi Serigne Touba da ko bind déet waay muy fan soo demee ci xasida axiru zaman sëriñ bi mi ngi wax ne haza zamanu aqbaxu zamani li kasrati l isyaani fil buldaani nee na di ngeen dem ba tolloog époque boo xamante ni mooy yàlla gi dafay law fépp bu ne moy yàlla gi da fay law fep nak su ne moy rek togn sa borom dik na lay waral togn nak khuliqal insana min daifin sunu borom dafa bind doomu adama ci batati togn man ta wess sunu borom wàcce alquran ni alhajj ashhurun ma'lumat faman man farada fihinna alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxajj ñu ni kat febar am na boo xam tane mo nu tere siyaare ju yunus tibbi alayhi salatu wassalam xanaa togn dik na sunu borom joxat nu yeneen farata ni nanu umra digal nu ñuy julli aljuma jullit bu toggee ñeenti aljuma julli juwu ko tàbbi na ci yéeféer yooyee yëpp covid 19 aaye nu ko ñu laaj sëriñ bi ndax lan mu ne wa maylu jullin julli naasi lin nasaara maskanukum al jeex misaara mu ne li ëpp ci ñeel wa maylu jullin julli naasi lin nasaara dañuy dox doxinub nasaraan fi mu toll nii tawat bi ñu ko gëm ñëpp rek esprit nasaran mo nek ci sen bop waye bu ne ben tawat bo xamanteni famu tambale mu tàmbalee ñoo fukki yoon ak juróom-ñett muy Chine. def fa 3 mois jeex. ñun ñi matul dara ñu ni jógagu guf ba legi kon c'est l'esprit de nasaran mu ne kon al alwaylu kull wayli nasara maskanuhum ila al jahim sara fo fek say say nak seigne touba ko wax nee say saay-saay alwaylu say saay kull alwayli ka ko gëna say say saay nee na lay doon. مسكنهم الى الجحيم سار ني نك سين دك واي سفر لي مون ني نك دانو كولونياليزي بو كولونياليزي سون خيل امونو دروا خلات سي سون بوب نولي امونو دروا ديف سي سون تيوبوري بوب ليب دان نكاي ديفال دان لي خلاتال دي نو دوغالال دي نو ديفال ليب تا ني نكاي ديفال بوك نو نيوم دين الاسلام تا نك تي نون نون لانس دكري ني دين mandarga yan moy tax nga xamni Covid 19 mi ngi ñëw ñu laaj ko sëñ Touba mu ne li ëpp ci gone yu góor yi wa qillatul xayaa fi sibyani wa qillatul xayaa fi niswani mu ni dafay bëre ci gone yu góor ñi ñu ñak kersa léegi ngay romb góor gu sol tubéy joo xam te ne pour mu simi ko dañ koy jàppale pour mu simi ko kon wa qillatul xayaa fi sibyaani la sëñ Touba wax wa qillatul xayaa fi niswaani da nga romb jigéen ju sol lu tumuranke boo nekk yow li nga sol ko lu tax nga sol ko mun la xooleel maa nga noppi. maandu ana <laughs> tawat bi am. Mhm. ñu ni nañu jël distance fekk na lislaam wax na bu yàgg. laa mhm. taqrabu bu kenn jegante. ñu jegante ba tawat bi ñëw soog a nuy jëlloo distance. feebar bi am ñu ni bu leen seetante. ay sëriñ bi ni bu ngeen sa yegge udu maridun muslimin lillahi de len setti julit bu febar ngir jëmmi yàlla ta fim mu julit bu corona benen julit du ko setti ci wallaahi lu yeen du ma ko def de kon xam nga ni manam c'est quelque chose bo xamanteni don nako imposer way don lu am wàllu nag corona dem Touba ñak dem Touba sunu ngam ci seigne Touba da wara a la sahaba yi dajon ci yonent bi dañ doon daw ay kilomètre laata ñuy yegg ci xeer xare woo fi dégg génnuñu seen biir kër yi rek dem tàbbi ca tool ya xare ko danoo daw ay weer wala ay semaine pour war a yegg ca champ de bataille ba bàyyi seen i soxna bàyyi seen i njaboot dem jaay seen bakkan ngir ak islam Sëriñ Tuubaa bi mu fi ñëwee dafa ne lil mustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatul gharra wa inni ahmadu dafa ñëw yeesalaat diina sayduna Muhammad yonente bi alayhi salaam jaral ko lu ne mu jaay bakkanam bii ni dem mi wa ahli wa awlaadi fiddaa'un um lahu abdan xadiman um lahu muskan li sanada loolu ñun du ñu ko jaral ci sëñ Tuubaa ah, waaw bu ndee bu ndee gor <laughs> ah bu ndee gor bu ñu ko jaralee ci sëñ tubaa on s'en fout mhm. de corona mhm. ak lu dul corona mhm. man ak ñi mel man dund dem Touba dee dem Touba. suñu dundee danoon dem bu dee danoon nu yóbbu. te mu mel ne bu ne bu nu bu nu bu li nga wax lii lépp bu nu ko calculer rek lépp day jóge ci fi mu jaar trash yi mu def choone yi mu daj ah diggante wir wir ma yomba et cetera ba tay li meuna taxaw est-ce que ñun waruñu waruñu xolé fofu sax ngir li mu daj wa ñak mën gore dem Touba mom moy ñak am tawféex sëriñ bi defal ne képp koo xamante sama mbik sa mbik la mhm. ñewal nga santale ma yalla mhm. mag mu liggéey ba da salaire nak mhm. wala ngir ngeen séddoo ko so gore wara daw li ngay wax ni nak sababu ghaibati anallaha arada an allaha an minhu jaha وأن أكون شفيعا للقوم وأن أكون خادما في الدوم sëriñ bi époque yi mu jaar nee na dem gi may dem demuma ngir ak leen damay dem rek ngir bëgg leen a rambu chafia chafian la wax chafian nag boo ko dee dégg baatu chafiu la employé mooy kuy rambu di nga dégg nag sax am ñu naan la kenn mënta rambu kenn nag kenn nangam ak sàngam kon alxuraan lu mu waxee mën sa lazi yashfau indahu illa bis ni boo demee suros baqara da nga ko fekk sëriñ bi nag ni waan akuna chafia damaa dem ngir rambu leen waaye nag wala akuna khadiman fi dawmi mi kat yonente bi laa ndax nee na boo man khamatul akbar nani ko antal karimu mul ma annal xaddiimu sababu tukki bi nak lat muy génn li seigne touba def ku mel ni sëñ tubaa loo ci gis deux yàlla bari na la lu ne lu ne yàlla ñaar la ci am kenn la waye seigne touba mom ben la ci yàlla am wallahi dafa ni ijal rujuu ila qawmi saadatana wal takfina yawma jamil khalqi nirana waxul yalla yalla nga def de wala suma demé ba ñow nga defal ma dafa ko ideal defal ma rujui sama tukki bi ila khamis mi mu don mbégum gaa ba fan nak yow ma jameel nirana ba keroog ñuy tabbi mo do sëñ Moussa Ka ko la yonen bu ruujoon gor ñu boy ko ya ko bay bu l'islam defon ab tol ñu ko wa Touba. kenn mom def yan wanu yenoon xutbu ya ak ab daal ya te attanoon ko bàmbaaka fab raw gaaña dëngañ di wéy ca tawatul balaaya suratul axwaani la am ci laaya mhm. sëriñ si naa xis lanu bàmbaay kaamil mar yëpp soq lanu kenn mu jóge fi nag mhm. njàmbaaru sëñtu Tuba mhm. yaa ngi koy xam ci keroog bi nga xamante ni ne gouverneur yónneelu na ko ndaw ndax booba sëñ Moussa Ka nee na maam Abdoulou ak Ibra Fatim Sarr ñoo ko kalaame borom nar loolu sëñ Moussa Ka nee na maam Abdoulou ak Ibra Fatim Sarr kalaame ko borom nar moo tax ñu dëkkee dër dër kon xam nga ni sos yàgg na ci lislaam ñu tuumaal sëriñ bi ni dafay fexal jixaat waaye jàmbaarub sëriñ Touba. Mhm. yaa ngi koy xamee ci boobu ku tubaab bi yónnee lu ndaw rët nga soo fit nee na rës génn ci yow say mbokk mhm. bu la jàngalul ay kaamil moom ñaanalul la yàlla lu lay musal ñoo ngi toog di la mhm. waaye bi ndigalul yàlla wàccee ci moom xam ne du wéy ji ndigalul tubaab moom lu dul ndigalub yàlla sëriñ bi du ci yëngu mm-hmm. keroog respecté doomi aadamaa tax sëriñ Tuubaa yebal Cerno mm-hmm. ndax booba yàlla convoqué gu ko tubaab ko convoqué te sëriñ bi du wuy ji xaw ma quatre-vingt et quelques convocations yoo xam ne demul bu yebal borom daaru ca jàmbaar jàng ngor ja bàyyi si aw ball ak awa balla Ousmane awa balla waaw mm-hmm. Mam cerno ibra faati naamal daru ya wujji woon ndayal awa balla usmaan awa balla baay cheikh bayi kara mbakke noorey ni baayu maam cerno ibra faate yaa wujji ba ka sëriñ Tuuba yebale mu dem yor leetar ba ma nga fekk gouverneur ma nga toog man Cerno Ibra Faati ndaamal daaru ma nga fekk gouverneur ma nga toog mu daa di yor leetar ba gouverneur daa di jël palaat bi ni ko tegal fi le bee munan naan ko déedéet sama mag yu bax janena na na na na la ko jox loxo loxo. xam nga personnalité ci borom daru la yem. dëgg fit ak njàmbaar ak ngor. Mhm. ci borom daru la yem. Cheikh mhm. Moussa Ka neena na la Cerno yor jëmmi nit jukkoy malaika Cerno fatou wute nak musa Ka mhm. wallaahi bi mu demee wuy ji mhm. wuy jil Serigne Touba den nga tawala fal ba muni Cerno ko jitu won fa ndar dem fay ndiroog gaynde gu ngar mhm. ndax ngor fa aw tàngoor wu tar ñu nan muy delu nan ko tar kar moy li sen sang cheikh yekati legi ndax bobu sen bi dafa ne ko lettre bi nga jox ko ki ki ki ma ki ma ko tek ci loxam Mm-hmm. waaye comme tubaab bi siixlu na nit ku ñuul ba lu muy jokkalante ak moom palaat lay doxale ci diggante bi waaye duñ tegante ak ñun loxo waaye personnalité borom daaru ak fit geeg ngor geek jàmbar ji lay ma gore moo xamal leen leen carrément duma ma ko teg ci loxo ku dul ki nu ma yebal wallaahi kenn la borom daaru doxalee noonu mu doxale mm-hmm. waaye ci fituk Serigne Touba ak nga xam li waral màggal gi ñépp war a wuy ji mm-hmm. muy lan keroog nga xam ne bi jot na ndigalu boromam war a wuy ji xam ne naxtu bi jot na nag mi mm-hmm. ko fekk ci jumaa am ju tedd ji mm-hmm. mu julli fajar ba noppi mm-hmm. ca njaareem ca njaareem sëlmal jibril alayhi salaam yegsi ci moom xamal ko ni ko sa borom nee na liggéey bi mat na faw ilaa ndar wa min mbàkki <laughs> keroog bi sëriñ bi génnee seex tey jii boo jógee pour war a dem ndakaaru rek di nga defar sa saak dajale ñaari yére di nga waaj moom ah protocole ayu bis nga fay def yóbbaale ñaari parfum ak brosse à dents kay moom ni koy waaj jënd ñaata pièce ah sëriñ bi bi mu jotee ndigal li dafa génn ci jàkka ji rek dog yoon wi koo koy jàmbar cey borom daaroo <coughs> ko dab ak fas wutu daalullahi mun ko cerno saa borom jox na ma ndigal kon dugaat ci biir kër gi aram na ci man ne ko cerno rek waaye gone yi na nga leen jar mhm. cerno rek waaye nanu jàng mhm. ni dell ba mu yàgg ni ko hmm. bu nu mënulee yaru mënunoo jàng bu fekkee ne benn da cee nanu am yar ta baña jang cey boro serigne fallu ci xorom ko daan wax sa bay cierno yar nan ban ni hmm yenu ban ni jar hmm jangal ni ban ni ar hmm cey xam tane lepp borom daaro ko def ci ñom xam ni demon na ba tollu ci febar bu met dal ci njabot serigne touba borom daaro do ci joy ba ñaan boromam bu ben njabot serigne touba nam me dem yalla njabot bopam gi dem mhm. wallahi xam ni daan na jël gatt lewetal ko ci loxoy bopam defar ko xagn ko ay domam defal ko ay njabootu sëriñ Tuubaa. ngir ndigal li rek ngir fonk ndigalu sëriñ Tuubaa. waaye njàmbaaru sëriñ Tuubaa tisbaar gi mën a santeeg iblis ci jéewal rek sëriñ bi mënoon na fa dëpp. waaw. alxuraan dafa ne inna ibadi laka alayhim sultaan. Mm-hmm. yàlla moo ko bind ci alxuraan. Mm-hmm. am na sama dëgg-dëgg jaam yoo xamante ni laysa laka alayhim sultaan iblis mënu ci ñoom dara. Mm-hmm. sëriñ bi keroog xasid aaya boobu la jël tënk ci xasida ay yasaminillahu inda jéewali. iblisa isnaadaytuhu bi yaawali tisbaaru jéewal gi rek yëpp mënul na fa yam ndax sëriñ sëriñ bi nee na foofu la teqal ko iblis. te fii ku daam iblis la daane kenn la moo gore kenn moom. mu dem nag jaar luga def fa fukki fan ak juróom. Mhm. ñëw ndar daj fi fii daj. wallaay. dinaa ci profito ñoo ngi Saint-Louis TV. wax naa ko bis magaamu mi ak ñenn ci gars yi. banque de sang fii. banque de sang fi ni may deret. fi ni may deret. Mhm. fa tëjoon Serigne Touba. Hmm? mu nekk résidence surveillée. jabari tubaab bi da koy xool ba mu yàgg daal ni jëmm ju tuuti ji ñu tëj ko ci benn bërëb. te ay. Hmm? ndax bu toogee nii rek ak sëriñ bi ni mu doon sëppee rek toog di bind. Mhm. mu dem ñaanal ko intervention ngir sëriñ bi mën a am liberté ñu ne ko bu rëccee nag yow la ñuy téye mun leen kii du rëcc ndax amul kàttan gu mu demee. waaye bàyyi leen ko ndax deretam mën a circuler tey jii foofu ñu foofu ñu ñaanaloon Sëñ Tuubaa intervention ngir deretam mën a circuler mooy may deret cay kenn du moom fu ñu ko mos a jaarale di ko lor boo fa dellu seetee ji ak màggal la dëgg la loolu moom leer na yan ba nu yoroon xut bu yàgg ab daaja te àttanuñ ko la wax mm-hmm. gaa yi àttanuñ ko mm-hmm. moom lañ ko yan moom lañ ko moo tax ndar moom ku fi nekk gëmoo Sëñ Tuubaa wala bëggoo Sëñ Tuubaa da nga def lu la neex rek. wallaahi wallaahi. waaye indépendance gi Afrique jot. fii lañ ko jotee ci Ndar. 5 septembre 1895. wallaahi bu Serigne Touba yox yoxi woon tuuti. tey jii Pierre ak Jean lay est-ce que danañ tal émission. non fan tal. ba tey jii ñoo ngi doon kon ay jàmm te boobaa. te it nag dinaa la wax li tax. muy borom màggal gi. Serigne Touba bi muy wuy ji bureau Ndar. nekkul woon marabu numéro 4. sëriñ bi dafa anticiper participation am. waaye déedéet ah. sëriñ bi dafa anticiper participation am. doo numéro 4. déedéet. fi ngor ga tax mu jël carte sëriñ bi bi muy ñëw fekk na tisbaar jàll na. Mhm. ñett dugg nañ ñu rendi leen. Mhm. Mhm. bu nu génnoon ñu ni diw ak diw abandonné nañu génn nañu ñett ñu njëkk dugg dañ leen faagagal. sëriñ bi dafa anticiper participation am ndax bu toogee ba rang bi jeex si ci moom ñëpp jeex. ci ngor geeg jom jëm fu fu fit bi. mu joxor bi gaa yi jóg wuy ci ku ragal dana def noona déedéet ragal yor bakkan woon na <laughs> ñoom la muy jàmmaarloog ñoom jaayanteeg ñoom la muy jaayanteek ñoom. Mhm. jaayanteeg boromam la muy jaayanteeg boromam. Mhm. keneen ku jaaroon fa mu jaar yaay dem géej. te sax nag wax dëgg yàlla géej gi mi ngi fi ba léegi de bato yaa ngi fi essence am na fi ah, ah. ay tubaab a ngi fi sax yu mën a yóbbuwaat yu gën a kàcce ñu fi nekkoon waaye Serigne Touba bu pare pour dem moo fi am moo fi amul de loolu de dëgg la moom nan dem ah nan dem ndeysaan Serigne Touba bu pare pour dem amagul ah, ko de disponibilité maanaam disposi koo xam dafa disponible moom te maanaam dégg naa si ay kàddu sax yoo xam ne nee nañu mhm. maanaam bi Serigne Touba di génn rang di wuy ji mhm. maanaam di génn rang mhm. maanaam kilifay yi dañ ko xëcc ni ko wuy ma waxal loo xam mu leen maanaam ñu ni ko yow fexeel ñu bi rek mu leen xoola su ma àggee fee yéen ñëpp daane jëriñu wallahi kon xam sëriñ Taala dimbal ñu ñëpp kon dimbal googu nga xamante ni sax laata laata laata laata muy wuy ji mhm. mag ñi ci dar danoo yàgg baax mhm. Mhm. danoo dajale seen ay koppar dem neexal tubaab bi ni ko no bëggoon nga bàyyi mu delluwaat tey ci njiitul sëñ Amane Ndiaye Mabey ak sëñ Ahmed Khourech keroog bi nga xamante ni def nañu loola dem ci tubaab bi neexal ka waaye ci tubaab ak orgueilam tubaab ak réyam tubaab ak euh, bëgg tiitaram ak bëgg kaddu daf ne leen danaa ko libéré ak bëggum xaalisam. Mm-hmm. danaa ko libéré. Mm-hmm. waaye nag da ngeen dem ngeen wax ko ni mu ñëw wax excuse <laughs> mu ñëw jéggalu ma. du ko def sëñ Ma Ndiaye maa bee ni leen sëñ bi ma xam. ci fit week ngor bi leen dem rek waaye du ko def. bi nu ñëwee waxtaan ak ku tedd ki xamal ko fi jaar yëpp sëriñ bi sant leen gërëm leen ci. Mm-hmm. ni leen nag. gestu joxol bi suñu mën njaay maa bee ni ko yaa may seede damay dem géej liggéey te damay dellu si li fekk may dellu si doo fi faatu bopp du def metti li nga ma loolu bi na xasida ak asiru jox mm-hmm. waaye xam nga lu xoromu ci biir al xasida gi mm-hmm. sëriñ bi dafa ne rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashabahu fil bahri xiina adduuru dañ ko doon yóbbu di ko sànq ji mm-hmm. mu ne rafiqi maa ngi ànd ak kitaabullahi téere yàlla bi wal mustafa nabi ak sangu-sang yi واصحابه اصحاب يخون بدر في البحر كبير جي عيناد روح المي ولد مسيري مع الاخيار لله بالنبي تكي جي مي تكي دما كو دم غير جيم يونت عليه الصلاه والسلام وما لي لغير الله او المصير لما كو خامت ما نام دان ما وما غير ورما يوب جانال جانال جيم اي نخلا للمصطفى نويت ما يجدد kon mu mujaddidullahi akbar bi moy Serigne Touba dafa ñow ngir yeesalat diine ci mhm. eh. kon dafa fekkon l'islam gi ndërmeelu serigne Moussa Ka bin na l'islam gi sanku ju won na ci biirub non Bamba ka dabatal benn Serigne rek la fi won muy Bamba khadim Rasul ñi fi nekkon du dano ayul de du dano ragal wala dano mulut ay jambar kep fi nekkon mhm. way Serigne bi ele meilleur waaw moom kañ mom lool mom nañ ko nangu rek lu mënti am nañ ko nangu ni mom ele meilleur sun doxale ba ci karam nag danaa la pourquoi sëñ Touba don meilleur ah, ah waaw Seexu Bamba yaa jaraway yanu doy te yaay ki ko yor bar mu rëy ma yaay ki ko yor Bamba doomi maam jaaraw Seexu Bamba yaa jaragam yanu boo taxam fi nu jam yafu mat ku ne sëriñam bamba doo mi maam jaara gaayawoo nan ko biro ndar ñëpp naan ko liilu ko jaar bamba naan leen wéetal yàlla rek ma bamba doo mi maam jaara mm-hmm. sëriñ bamba mm-hmm. Ahmado borom jaareem sëñ Bamba hmm. la mu tontu sobiron dar ba moo yóbbu maa yomba gaaña gantu ñoom la nu yóbbu doo mi maam jaara cheikh mii daa mel daa am lu mu naan. <laughs> noonu bàyyi xel nag sëñ Tuubaa bi bàyyam di wàcc liggéey fanweeri at la am. Hmm? Hmm? Hmm. ak nijaayam. nga xam ne suñu borom da ko rusoon ba dafa jant bu muy fanaan man yàlla duma fa fàtte. daa mel daa mel sëñ Mbàkke Buso la. sëñ Alaaji Maalik nee na na sëkk ci ku mënta gëm sëñ Tuubaa. boo gisee Mbàkke Buso di ko raamal war nga koo nangul. dama nekkon léegi ci ile le maire Cheikh am fu mu dugg daat ni monu botte xam fa nu jëm kon bokku ci léegi nak la tax seigne touba bokku ci la lay wax yàlla moko ni bokko ci ah da ngeen nazaani min al wara as-samadu wa min xumu nazaali muhammadu baatu bokko ci la ko yàlla utiliser nee nazaani sempi na ma dindi na ma minal waraa ci biir mbindeef yi ku la ci dindi mu ne asamadu yàlla moo ma ci génne ci biir mbindeef yi ne ma bokkoo ci mbindeef yi toogul ne ndax moom yàlla képp a def loolu mu ne déedéet wa min xomu mi ngi ànd muhammadu sang-sang yi nasa ali ni ma génnal bokkoo ci daal ni ilaya xaadallahu ilma awliya kal wa rusulihi fii nayliya xam-xam ba yàlla joxoon awliya yi ak anbiya yi ak yonent yi yàlla yóbbu ni yàlla rafaatal na ma xam-xam yooyee yëpp bind la de ila ilma al anbiya ilma al awliya wa al anbiya wa rusulihi fii layliya bokkul ak ba tey ila yaxaadallaahu maalam yakuni wala yakunu abadan li mumkini yàlla may na ma loo xam te dot doot ko mayti kenn faaxe na ba yamal xiyaamatil akbar ñu jël saa jël siraat gàcc ci kaw jahannama sun sun borom li ma may du ko mayee ci kenn. ci suñu wàcc. ah dee rek. kon xam nga ni bokku ci. <laughs> ñu bëgg ko def moroom. Uh-huh. yàlla mayat ko yeneen may mu bindal ko boppam malaka nii maaliku kullu jaami wa uh-huh. kullu masjidun mina mu uh-huh. jaami yéen jaam ñi maa leen moom yamuma ci moom gi ma leen moom waaye jàkkee ak jumaa yeeg lan cey jaamu maa ko moom. ñu ni ba tey bokku ci. mu ni simaamil wara asri la dallahi fii yeddi mm. wa maa rumtuhu min malikin xaada bil ani nasu min daa yàlla tënk ko tuxu na ci loxo yàlla la wax nee tukkee na ci yàlla fii yeddin bi ci samay loxo nga xam ni baat bi mu employé sunu borom da ko employé yoon keroog bi yonente bi nekkee ci taxta shajara mm-hmm. daal di jaayante ina la si nuy bàyyi unaka الا ما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم لا القران واخ لوخو بي يالا لا واخ طيب. كو تك سا لوخو سي كاو لوخو بي يونتي بي تك كو سي لوخو بي يالا مولاي لا الله توكي نا سي يالا في يد تغلو سي سامي لوخو يامو تي بولي وما رمته من مالك الخاد بالالي كنغو اكبل الخاد ديغا اوموتو بالالي با سامي تانك مان سيرين دي مالا موم نخ ني رك نا موم مولاي ديدت su ngeen faatoo ba dugg ci biir bàmmeel ña leen fay recevoir maa leen moom wa masalul mulkiri wa nakiri jawaabuhuma indiya laa tunkiri naka laaju ñiy laaj ci bàmmeel mulkir ak nakir jawaabuhum seen tontu maa ko yor man sëñ Tuubaa laa tunkiri kenn du leen yey akrame ni bi xul falaa xat rabbi wala mu yëkkul ko mën a xat li ci gën a xoromu nag bi mu waxee wax ji ba noppi dafa ni kataba allahu tabaraka wa taala nee na yàlla bind na moom suñu borom tabaraka wa taala anna katiba haadihi lxurufi naka mbind yi ki koy bind sa yarahu llahu fi jami l anbiyaai wa rusuli teg naa ko ci kaw képp ku mooy mësa yónni tey sëñ Bamba bokk ci kenn la neexuta sosal de loo ko waxal moo ko bind nga dégg ko nag ba sa xol naqadi mu ne qulubu jumlati lasina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslihu demal ci wakkaan aqal sëñ Tuubaa nee na xol bu namuta texe sax lu ma bëgg man sëñ Tuubaa bañ sëñ Tuubaa kawteef la ñàkk nangul sëriñ Tuubaa moom ëpp na hmm. waaye bañ sëñ Tuubaa ci sa xol sëñ Abdou Lahad nee na mooy nga dem sa marché ba sotti sa bopp essence taal ko nee mooy nga dugg sa biir nekk naan poson hmm. deewu kaña rek ngay dee waaye Cheikh Fallou hmm. Cheikh na wax si màggal gi ba fi ñu toll nii tudd na sëñ Fallou ah déedéet Fallou bu sa càmmiñal ma rema kunta jax réew mi falliloo galas bàyyu mbee mbeen laal ngeen Serigne ben, baayu mbeen. wallaahi wallaahi laal nan wayu waral màggal gi ndax Serigne Fallou moo woote màggal gi. Serigne Fallou ji sëñ Fallu te ndox mi wal na tuba di reeme sëñ Fallu rus loo na waxteet mhm. baayu mel wayam du jamban sëriñ Fallu da maat mataal réew mi ah di safar moom mooy sunu yite Sëriñ Muntaxa nee na dañuy màggale. jërëjëf sëñ Cheikh Cheikh Fallou daa mel sëñ lañuy lañuy lañuy lañuy daay lañuy daayee dañuy daal di jeexale émission bi foofu noonu. danaa la wax tey jii Serigne Fallou loo mos a dégg. muy lan. naa la wax turam. indil la ko ci alxuraan. cay. ma wax la kañ la gane àdduna. indil la ko ci alxuraan. wax la ban bis la. indil la ko ci alxuraan. wax la ban quartier la. indil la ko ci alxuraan. cay. ci waaye mbëkk de. Fànnaaw bu sa jox réew mi. <laughs> wallaay kenn du xam nga xam nga doy na ci sëkk. <laughs> keroog bi mu gënee àdduna. suñu ci daa bind bind wu rëy xat fakka kab la. xat uh-huh. bas sa fadd la. fadd uh-huh. ru wala wan na fa jaay. dëgg la. keroog bi Sëriñ Fàllu gane àdduna bay bii la Sëriñ Tuubaa bi xat fakka kabla xat basa fadla fa dur wala wa dafa jaay nee na fakka kabla lan leen jëngee woon dagg na من قد بس دكنا فضل أجلل دي فضر لا لين دون لور ولا دمنا والنفع لك جرين كجاء دكنا داني ما تحمدو كان نعم، جي وقت سمكر بينك ربما تشر مجن خارا لجوكو لو متدو القرآن على كيف لو متدو سالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لان سالك لولا فضل الله غنل يالله يؤتيه موكو جوخ موم يالله من يشاء كوكو سوب والله مم يالله زور فضل العظيم ما يبرم قليل ما قليل كان ما صب يالله زور كيف جنا رجال إن أكرمكم عند الله أرخاكم كيف جنا رجال يالله تيان مو جنا تد تيان كان جن كود سن تبا جل جي مو جل تيجي جي نيدي كون لانغوك ديكو بني دف كون نكرام نخلينا كرامتي خاتو يدي بندق لهم ما يكرامم كوه هم انت لي 33 ans يعني تنبتو دلو 75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 xutba xutbaam bu saf xorom boobee naan borom barak bii rek day la ñëpp bëgg day ñun ñoo ko am day kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf. Nawa. barkaar ci la gane àdduna moom Serigne Fall alxuraan la koy nettali. Mhm. mu ne wallaahu yad'u ila daari salaam. tey. Mhm. alxuraan nee na wallaahu moom yàlla yad'u yabale na. Mhm. ila daari salaam yi ci quartier daaru salaam Serigne Fall gane àdduna Touba ci quartier daaru salaam. Touba gi mu gane àdduna alxuraan la koy nee na dëkk bi muy wàcc allasina amanu dañuy gëm ma mm-hmm. amilu saalihaati tey dimbalante ci jiw mm-hmm. Tuubaa lahum husnul ma'aab texe ñeel na leen ki may fallaahu bu sa jax réew mi mm-hmm. nday jaadi baayam ci seenu askan baayam ay ndayam moo doon saayir sa ak baatin ba billaahi daan na wax ku dul sa daan na wax ku dul Sëriñ Tuubaa maa la mën fuuf wallaahi doom màggal gi nag moom moo ko wooteel Sëriñ Tuubaa ndax alxuraan bindul fenn ni dee leen dem màkk difa fa siyaare ji ay pas-pas rek ko indi loo jàng alxajju ashhurun maalumaat fa man farada fihinna alxajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxaj la fan nga ci jàngee foo xam ne dañ naan la demal màkka nga defe ji fa ay pas-pas fa yóbbu jullit yi xam ni it dem fa moo gënal sun borom ñuy dem tawaaf ca Kaaba fii Kaaba gi nekk tey jii sën la woon ñu mm-hmm. fay defi mbalit ak yi ñoom min seen tey mu ne nag sëñ tubaa ñëw ci dëkkam bii moo ko gënal ndax sëñ Touba it woote wut màggal gi Touba mm-hmm. santale leen ma yàlla rek la wax. da mm-hmm. tàmbalee ci ginaar ba ci gileem. sëñ Fallou moo ne nag Touba wu gënal sëñ Touba na ñëpp ñëw Touba. sëñ Mountakha Bassirou bu génnoon ni bu leen màggal si moo xam ne jaam ñi sëñ Touba lañu gëm. <laughs> murid yi gëmuñu ku weesu sëñ Tuubaa mm-hmm. moo dimbali jàmm ni moom sëriñ Fallu mm-hmm. ba dajaloo gi di am ci tubaa mm-hmm. te déclaration bu gàtt fu ko waaye daan defee na nga ko bàyyi te ñëw defee si ko tubaa ndax moo gënal sëriñ Tuubaa ñu kàddu sëriñ Fallu googu rek war naa tax lu waay jàpp di dem Tuubaa màggal moom tawat ak patak laagoog gumbaak lu mu ci mën a doon dem li ci xoromu nag mooy ku dem dana fa fekk ñuy dem ku demul it di nga fa fekk ñuy dem am na ñu ma dégg sax ñu ni duñ dem bi ñuy dem ndax ñu ni yëgoon nañu ñoo ngi doon dem mu demul yàq dara ci xorom si de est ce que ñoom baru naan dem ni ñi yëgoon nañu ñoo ngi dem hmm? seen ñàkk dem jarul publicité wallahi sëriñ bi amunu ñun kese hmm. jinne yi ngi ñëw de hmm? sëriñ bi amunu ñun kese <laughs> jinn yi ngi ñëw de ah déedéet waay yow tey amul ku nu rayul maa yombe mbàcce réew yi gabon ci nen demoon sànki foofee ndegam doo Serigne Touba rek <laughs> ah ñoom kanka yoroog naab ba yoro kali rakk ak ndongoom ya ku màggali ñu màggali ku màggali jiwul ñu màggali ñuy dem ah ah waaye xanaa délégation kan ko yoro rek fees na Touba. waaw ah, délégation bopp. te ay jinne la yu jébbalu Sëñ ci wiir wiir. sëñ bi def noo am ñun kese. ñun dañoo yàq ci xoromu sëriñ bi dara. mu waay mu di ñun bu ñu demee beneen bi ci des mooy am na ñuy wax naan ay ah, nitu yàlla du woote lekk ak naan sëriñ bi wootewul wér di wootewul sikar wootewul durus xasida mm-hmm. kaay leen santale ma yàlla la wax ginaar ba gileem kon berde rek la ku fa jàng xasida da nga fekk si lu baax rek def ko ci mm. ku ca wér da fekk si lu baax rek def ko mm. lekk ak naan moo fa yóbbu nan ko xam sëñ bee woote lekk ak naan ah sëriñ bee woote lekk ak naan ah? kon moom nan nan ci nan ci conscient rek te bàyyi ko xel. attaaye na naa pom ak banana. koko ananas lépp ci màggal gi. rendi leen ginaar yee. rendi leen bëy rendi leen nag yi bu leen fàtte gileem yi Sëriñ Bamba jar na ay min ilaahi kaw ni xadima woo abdallahi wali naasi ay dan saadaw laaw sifa an wa faydan mhm. yaman yaro mu dafa kulla daaye فلا تفارق من لب شفاي قدم <laughs> عليه في المساء وسنبا وانس التناسفا وفلا بن ربنا وجاي مصطفى sala alay rabbuna kam Mustafa. sëñ Cheikh jërëjëf. Euh, non euh, di ngeen di ngeen ma may nag cinq minutes rek ndax temps bi jeexoon na waaye suñu papa. suñu kilifa suñu jëwriñ ci yoon bi dafa dugg ci léegi léegi te gannaaw bu ngeen gisee teraang yi yëpp ah day sama yaay Fat Aale ak moom mi nga xam ne mooy suñu waajur day waajur si ñun di papa ci ñun du mbokk ci ñun ndax bu ne waa kër màggat ngoñ ñang ñii ay sëtam nga xam ni kon dañu ñëw suñu kër ndax tey Sëñ Tuubaa la Sëñ Tuubaa képp a ko sëñ tubaa képp a ko ñor foo ko mhm. gis muy dem bu laaj ci lu muy dox mhm. sëñ tubaa képp lay dox mhm. ci social bëgg ndar jàppale waa ndar ci loolu képp lay dox kon ñu ngi ñaan yàlla e yàlla ngeen li ngeen ci wut yëpp yàlla ngeen ci am lu ëpp seen jox waaw te télévision bi ah tout Saint-Louis TV man de bokk naa. man de bokk naa. alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla nag. ba mu doon pas nii rek dégg nga mooy mu doon ci bâtiment bu mag boo xam ne. yi ñu dégg télé yi yëpp ñu dégg leen fu karoom. amiin ba ci kër gi nag. Mhm. kër Serigne Touba la. waaye ci ko nga dëgg di Cheikh Mamadou Bala fanaan nga xam nañ ko bu baax ak ñeneen mbàkk mbàkk yu bari jaar na ci mhm. ndax fii kër Serigne Touba la yàlla bu la boolee mhm. ci daayira des étudiants murid mën naa wax ni la ko sama lamiñ la ndax booba dañ duggee daayira sëñ Ablaye Sarr nekk tuuti tànk booba université kenn ñemewu fa wax waxum waxum diine sax bay waxum waxum Serigne Touba ñu nekk ci néeg bu ndaw ñun li jóge Ndar di waxtaan di waxtaan ba mujj nit ñi di ñëw ña kon diingat mujj na ñoon dàq daanu. biir dee. ñi daan diingat. Hmm. ñoonu mujj dàq daanu. xajatun fa ñu amal nu kër. ndeysaan xajatun fa. daayira boobu mooy indi isbu tax bi. isbu tax hmm. daayira boobu te sëñ Abdoul comme ni IEF lay ñëw jox ñu ay miches xam nga ay étudiants yu ñu rek. nee mm. nga lekk gu bon mu jox ñu ay miches yu. jox ñu pañe góor nee na damay góor dama bëgg ngeen góorgóorlu ndax seen tubaab dafa def yaakaaram si yéen. wallaahi de wax naa la amul kenn ku ca boppam koo xam ne doo kilifa. amul kenn koo xam ne métier ba nga ci nekk ràññewul la te boo defu naa da ngay sa bopp la dangay ngay defa ni sa xam-xam la da ngay defa sa mm-hmm. mën-mën la booba lu tax am nga lu tax wallaahi kenn du moom ñu pare ñu def usine classée yëpp ba tey jii mu nekk au service di xalifa lépp am. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. kon bu leen dikkee fii. et waxante ak sama soxna. xam bu baax dafa sawar xam bu baax ni fii kër Sëriñ Tuubaa la. Oh. wante tamit ni ngeen ko ci ràññalee. ni ngeen ci ràññalee moom. boo wax ak moom ndax amuñu lu lii. dama ñëw seen kër fekk ñoom ñoom ñoom ñëpp ci xaar ñoo fa indi ak ma di ñoo fa indi Serigne Touba. mais léegi man damay xoolaat sama pas-pas. bu ma xoolee passeport maa ngi xoolaat sama passeport. walaay dëgg <laughs> ndax sóobu gi mu ci sóobu. Mm-hmm. ñu jaay. Mm-hmm. Mm-hmm. kon nag loolu tamit muy doon bénéfice boo xam ni. waxuma sax sama bénéfice bopp mais moom damay bénéfice ci bénéfice am. kon daal dégg nga eh nga góorgóorlu. incha allah bu baax. incha allah ndax nag sa bët yi ah muridisme am na ci yaakaar. nit ñi am na tuuti yaakaar te sa taxawaay rafet na. waaw mbir mi mm-hmm. bu ci gis mukk sa bopp. bu ci gis mukk sa bopp. ndax ku mu doon sa sago ku mu doon sa sago mu mel na yow. Mm-hmm. dëgg la. kon góorgóorlu. Mm-hmm. incha allah jàppal loolu. waaw boo ko duggee da nga mujj yow mii jaaxal sa bopp sax. te nag boo jaaxle boo doo jaaxle parce que xam nga ne Serigne Touba lu ne mën na ko. moo am lépp macha allah dégg nga di la sant bu baax ndax yow def na mën na mu ngeen sa sa sa yaay. waaw sa maam dégg nga ko. lay dégg ak Serigne Touba. wallaay wallaay mu mën ci tool. Mm-hmm. dellu ci Serigne Touba. Mm-hmm. dégg jëmm ji moom dama ko gis boobu ngay tuuti tànk lool ñu kàpp sa loxo dégg nga nekk sa wetu baay dëgg la waaw mais li yëpp waaw dañu delluwaat sant bi nekk ci ndax yaqulu lii wala yaqulu min nii illaa li man chit bi gis ci min nii mm-hmm. kon nag buñ si سبي بقى أبي لفيك يا الله بسم الله فيني لك دار يا الله سفي بقى أبي لفيك يا الله يا ملو أمرو يا من لا شريك له وسيء ما لغوات لفيك يا الله أنت المزيد الذي زلان بذاتي الإنس والجن والجن seytaane yàllaaw isa jeey fatim pendalat sukaabe ngoone jeey Seex Ibra dammel foogu dammel ne calaw dammel dammel sàmba faal Seex Ibra faal musoobu far ba jiitu leen bambaani ëpp na leen leeram nguure gi war na leen bu ko defee bu ko defee ñoo ngi tàggatoo nag waaw ñoo ngi gërëm ñoo ngi gërëm bu baax a baax xorom si ki nga xam ne mooy dafa jaaj ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax baax moom sa doom la <laughs> waaw di gërëm di gërëm tamit waaw di gërëm tamit nomis, euh, nomis. Ousseynou ñu ngi lay jaar di la gërëm bu baax a baax gaz euh, gaz El Salvador moom def naa moom xam nga ko moom ah, dafa làqu mi ngi na la sa gannaaw na feeñ <laughs> yow mi nag yow laay wër <laughs> mais kii kii kii moom ñëpp di wër fi mu nekk nii Misal gas ngoo kan dafa laaxoon war naa ma feeñal ko kan. gaas ana nga mi ngi dële waaw donc élage élage élage tamit ñu ngi koy ñu ngi koy gërëm bu baax baax di gërëm nak Cheikh eh, Fallou Ndiapandal mi nga xam ni hmm. ba nga ko woowee dafa bàyyi lépp iya. daan ni daan ni yéen samay rak ngeen bu ngeen bëggee invité rek de sans invitation ndax suñu kër la dañuy ñëw rek def lu neex dem suñu yoon waaw muy suñu mag ju baax ñi ñi nga xam tamit li boole woon ay rakkam lañu bu nekk la ñuy defal fi lañ koy dafa am yoo xam ne dañ koy wax ñëpp di dégg lu nekk la ñuy defal daf ñuy conseillé du nu du nu du nu du nu gërëm du nu sant ñu defal lépp waaw sëñ Cheikh comme ni nga ko waxee rek boo waxee loolu foog ñu wax si dara mm-hmm. ndax suñu papa ji la ñuy seedal Cheikh Fallou comme ni nga ko mm-hmm. maanaam ni nga ko xamee si àllaaji Cheikh Cuuna borom Badar gi mm-hmm. li ko war yëpp si Cheikh Cuuna mi ngi koy def lu mu am Cheikh Cuuna la ko jox lu mu yor Cheikh Cuuna la ko jox ak ñun nii bàyyiwunul si dara lu nu dugg mu dugg si lu maanaam fu ne mu fekk nu fa kon dañ koy ñaan rek suñu borom yàggal taxawaayam barke Seex Ibra papa léegi nag xam naa buñ buñ ko buñ ko defee noonu du jeex dañuy bàyyi yow mi nga xam yaay suñu kilifa rek ci yoon bi nga nga nga nga nga daal di nga waaw boo defee rek gars yi te suñu cher bi nag ñu ngi la koy dénk waaw ñi ñi ngi ñi ngi waaye lépp waay loolu comme dañ ci waxtaan waay. Ah, dëgg dëgg bokk ngeen am waay. incha allah ah, ndax bokk nañu de. ah, ah. teel a taxawaalu kat yi. te ñu ngi balkos nag. asbil surtout atal umur asil toujours zaati ba. amiin tey. yaazal baqaari yaazal maa sha allah. tub lana umrana saxis lana badana wa naa fi fexe yàlla. amiin yaa rabbi amiin. wa dammir kulla a'daa آمين آمين وارتح لنا كل ذلك من الفاتحه والصالحين من امين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا امين يا رب قال ربك رب عزتي عما يصفون والسلام والسلام والسلام على الحمد لله نذكرك ان شاء الله